waaw toog lal mbalaan wër ko toog di tudd yàlla na allah allah yëkkati sa kàddu sa kaw du diine yàlla santaane ko yonde santaane woo ko jàngale woo ko taabian yi xamuñu ko saxaaba yi xamuñu ko waaw loolu bidaa la ah ñu ni ko ka fi wax nangam nangam loolu des koy wax des koy wax du diine bidaa moom bidaa la tudd sunna sunna la tudd lu yonente bi mustaxam yonente bi mus naa julli benn suba seulement ñu laal ko malaan mu toog magi saxaabaam ñu ñu ñu ñu ñu ñuy tudd yàlla dana ni xadis bi teg ko fii ni xadis baa ngi nii Aboubacar moo toogoon ci wet gi Omar a toogoon ci wet gee Ousmane a toogoon ci wet gee mbalaan maa ngi woon fii ba mu paree diw moo tëj nan na ni xadis boobu dégg nga nan nu andil fu ko saxaaba yi defee nan nu andil fu ko taabiin yi defee nan nu andil benn mazhab ci mazhab yi ku ko bind ci téeram Malik Ahmad ibnu Hanbal Abu Hanifa Shafi'i nan nu indil benn ci ci ci téere sharia yi ni jàng fii ban téere moo ko ci saxal doo ko andi ba pare nit ñi taxaw di wane ni lii bidaa la ñuy tëb di dal di tëb di dal sunna mooy dëgg ko jàpp yaa ci jàpp ci dëgg ku ko jàpp ci caaxaan nga nekk dëgg ji des koy wax barakallahu fikum wa rahmatullahi wa barakaatu Eh, xul yaa alxaq wa zaxaqal baatil ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen baal di ñaan yàlla borom bi boole ñu defal ñu jàmm di ziyaara ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mbokk mi ñu ngi lay ziyaara bu baax ah mbokk mi li ngay wax nii moom mbaa am nga ci dalil waay ah kuy woote sunna de warul wax lii moom lii de moom wax dëggul yàlla ku jàngul dara dara dara dara ci sunna moo ko war a wax waaye ko xam dara ci la moom doo wax mukk kàddu yi ma dégg ci audio bi euh, aka bari aka bari ay xadis yu ñëw ci lii ngay wax nii aka bari euh, du benn du ñaar du ñett du ñeent du juróom du fukk ëpp na ko mën nga ci génne ay fanweeri xadis yoo xam ne mi ngi wax ci lii euh, kon lii moom wax dëggu yàlla ku xaw koy wax ne sunna ngay woote waroo koo wax waroo koo wax de sëñ bi ñu ngi lay ziara bu baax a baax kii daal xam naa ne boroom xam-xamu sunna bu ko wax ah dëgg garaat boo am ci sunna de war nañu koo wàññi wàññil la ko rétrogradé la parce que nag it am na loo xam ne moom euh, bu ñu bàyyi nañ bàyyi farfarloo bi nañuy wax rek te yàlla tax gis nga euh, diini ji kenn moomu ko euh, ku nekk fa sa xam-xam yam yam fa ñu bàyyi farfarloo baaxul yonent bi waxul nangam wala yonent bi deful nangam fekk yonent bi def na ko wala yow gisoo ko loolu baaxul euh, bari na lu nit di wax na yonent bi defu ko wallahi soo demee ci sunna fekk ko fa mu ne fàng bari fan lool euh, waaye lu ñu fay faral di yóbbu li nuy faral di yóbbu ci loolu souvent farfar loo lay doon euh, da nga gis lii ne fànn nga sëgg ko parce que xëy na am na loo bëgg a tabax def ci bari yoo xam ne politique la rek bu mu jar nuy Euh, ŋaayoo wala nuy xuloo wala nuy xastante wala nuy waxante lu bon te fekk boobu la ñuy wax dara lépp nga ci xadis yi léegi su boobaa ku ñuy xeexal ndax ñun suñu biir la ñuy xeex wala yonent bi la ñuy xeexal wala yàlla la xeexal euh, ñu ngi leen di jaajëfal di leen ziyaara di leen balu àq di ñaan yàlla borom bi defal ñu jàmm gis nga li ngay wax nii aka bari xadis yu ci ñëw aka bari aka bari mën naa la ca wàcceel lu mat ñaar fukki xadis fii ñu toog mën naa ci wàcce lu mat ñaar fukki xadis yu ci wax ci lépp nag li ngay wax nii lépp laa wax ñu lay ziyaara bu baax jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ñu ngi ziyaara bu baax di la jaajëfal di la ñaanal jàmm di sàkku si yow ñaan di ñaan borom bi boole ñu defal ñu jàmm waa xam naa ne laajam bi sax xoy déglu sax laaju ko ku yéjjee la Euh, yaakaar naa ne ku dem ci euh, xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa euh, li mu wax ci jotaayu zikr mooy ay xalaqaat yoo xam ne dañ ko doon def di fa tudd yàlla bari na lool li muy wax ci ay mbooloo yu dajoo di tudd yàlla bari na lool li mu wax ci tuyaaba yu nekk daje du tudd yàlla bari na lool lu alquran wax ci tudd leen yàlla bari na lool kon kii wax allah allah euh, ndax kooku nga ne ko bidaa nga nekk loolu moom kenn xamul lu mu doon euh, daf ci bari yoo xam ne nag euh, suñ ci demee dafay nekk loo xam ne ab farfarloo rek la farfarloo la te farfarloo dafa am fu mu war a yam dafa am fu mu war a waaye warul egg ci noonoo su fa eggee rek dafay garaw te foofu lañ toll euh, yaakaar naa ni mbooloo yu daje du tudd yàlla ba yàlla ne wazkurullaha wazkurullaha def ko ci tudd leen yàlla waaw tudd leen yàlla euh, yàlla def ko def ci tuddal yàlla tudd leen yàlla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 ci wax ju ñu fekk benn mbokk wax ko fii wax ne euh, ñiy dajaloo di tudd yàlla amuñu ci benn dalil euh, du boo xam ne dañ koy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, te ñu gis ne loolu lu ami tegtal la nag wax dëggun yàlla ci alquran am ay tegtal ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa kon wax loolu dafay dellu ci euh, xeetu xëccoo ak xeetu farfarloo yi nga xam ne mi ngi commencé bari ci àdduna ku nekk ut sa kuréel euh, jàpp ca jàpp na yaa nekk ci dëgg ba danga dem ba gis dëgg sax lànkadoo ko nangoo gis ndax farfarloo ndax su boobaa yàlla taxati wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom la ñuy topp ca loola Euh, mu mel ne que propagande ak campagne ak euh, yu mel noonu rek muy indi yu mel nii te nit ñi nag dañoo war a delluwaat nag ci dëgg ak dëggu euh, ñu tombali ci mbokk mi laaj ñu nañ ci indi ay xadis wala ay aaya alquran yu wax ci loolu kon ñu commencé ci alquranul karim kon ñu njëkkee ci aaya bi yàlla di wax di santaane ñu tudd ko suñ borom tabaraka wa taala wax ni yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen tudd yàlla lu bari tudd leen yàlla lu bari zikran kathira bi yàlla wax uzkuru nag tudd leen tudd leen mbooloo la waxal tudd leen daal di tudd baatu allah kon ka taxaw ne allah ndigalal yàlla lay def loolu benn la yàlla bi mu ne usjudu li aadama ndax malaaka yi dañ doon sujjóot benn benn déedéet ñoom ñëpp ne rëppandoo benn yoon su yàlla ne uzkuru yéen ñëppay àndandoo tudd kon yaakaar naa ne uzkurullaha baatu ndigal la te ndigal lañ ko digal mbooloo lañ ko digal yamu ca zikran kathiran la ci teg tudd bu baree baree baree bari te baatu allah rek la wax waxul wax leen laa ilaha illallah waxul wax leen allahu akbar waxul leen daf ne uzkurullaha tudd leen allah kon ki taxaw ne allah allah nga ne ko bidaa nga def foo koy teg ci soo jàngee alquran benn mu del wax ca wa sabbixuuhu bukratan wa asila ni ngeen ko sabbaal ca suba ak ca ngoon kon sabbaal suba ngoon ka nga fekk muy eh, eh, def zikrullahi di sabbaal sellal suñu borom ci suba nga ne ko yonent bi daawu ko def diglewu ko nga fekk muy xëy di tudd yàlla ba jant bi fenk wala ngoon muy tudd yàlla jëm jant bi so nga ne ko bi ngi ko julli ba pare di tudd yàlla jëm jant bi fenk loola du sunna kon yow looy def ak aay bi wasabixuhu bukratan wa asila te bi wasabixuhu digalul kenn de mbooloo lay digal ba léegi xitaat bi ku nekk xam ne sag bi sabixuhu fiilu amri bi jëmul ci kenn ci mbooloo la jëm bi ci des Euh, huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu su ko defee loolu nag di wane euh, euh, jokk gi nga xam ne suñ boroom dana ko kii ci jaam yi ak malaaka yi xëy na boobu kon aay bii wax ne na ngeen tudd yàlla wax la eh yéen ñi gëm yàlla na ngeen tudd yàlla suba ak ma la ba tudd gu baree bari allah rek la wax tudd gu baree bari beneen bi ci des mu ne na ngeen ko sàbbaal suba ak ngoon kon suba ngoon feeñ na foofu Euh, beneen aaya bi yàlla di ci waxaat euh, ne su fekkee ne matal ngeen seen ponk yi na ngeen tudd yàlla daal dikkaat ci euh, digle tudd leen yéen la wax yéen mbooloo mi tudd leen yàlla comme ni nga xam ne noonu ngeen di tuddee seen bàyyi bàyyi nag abaa bi nag mafoolu bihi la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax wala sax mu gën sooy woo sa baay sooy kañ sa baay na koy wooyee na ngeen ko def kon kañ yàlla googu ñuy kañ yàlla zikrullah rek allah rek la wax ba tey fii da koy gis euh, kon aay bi tegtal la ci ne ka zikrikum abaakum tegtal la ci ne comme ni ngay di kañe seen baay de ko kañe yàlla kon euh, loolu beneen wax la boo xam ne dafa leeralaat leneen waaye am waa aaya bi yàlla wax waxal ne wooy leen yàlla wooy leen allah woo leen allah walla boo ngeen woo arrahman woo leen allah walla ngeen woo arrahman xam nga arrahman akbar moom kenn wax ko arrahman soo leen koy woo leen ko allah wala ngeen wooye ko arrahman soo leen di ñaan tudd leen allah walla ngeen tudd arrahman كولن تي مانتي دو نك فله الاسماء الحسنى يالا موم موم تور يسالي كون تور ولا نيه تور ولا نيه تي توري الله الله الرحمن الرحمن العظيم الكبير السميع البصير تور ولا نيه مان غوكو له الاسماء الحسنى موم موم تور يسالي كون كي تخاوني كين ورول واخ الله الله فان لا كوي تك تي يالا دي واخ اذكر الله wax ne udullaha kon fu muy teg loolu ba tey aaya bi su ci jëlee muy aaya bi nekk suuratul Isra qul udullaha aw uduu rahman ayyammaa tad'uu falahu al asmaa'ul husnaa wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha wabtaxi bayna salika su ko defee aaya bi itam euh, tegtalewaat ci ku la neex nu la neex ci turu euh, turu asmaul xusna mën nga ko wooye suñ borom tabaraka wa taala nu ñuy def ak xadis bi itam nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci Abu Hurayra ak Abi Saïd al-Khudri ñoom ñaar ñu wax ne seede nañu ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wax na ne euh, mbooloo du ñu toog aw nit du ñu toog di tudd yàlla aw nit du ñu toog du tudd yàlla aw nit aw nit nag suñ ko waxee du kenn mbooloo la du ñu toog di tudd yàlla mbooloo mu toog di tudd yàlla. illaa xafa illaa xafathumul malaayika lu dul ne malaaka yi ñëw nañ ca ñoom muur leen yërmande muuru ci seen kaw yàlla wàcce ci ñoom dal eh, yàlla tudd leen fa moom eh, mbooloo yooyu daje di tudd yàlla kon eh, malaaka yi dinañ ñëw ca ñoom yërmande yàlla teg muuru ci seen kaw dal wàcc ci seen kaw yàlla def ci ñoom sakina ndax yàlla da leen di tudd fa moom tabaraka wa taala ndax ñu ngay tudd yàlla feneen jàpp googu ñu jàpp di fàttaliku yàlla di tudd turu borom bi mbooloo la nag la wax mbooloo mu daje aw nit ñoo xam ne dañoo toog di tudd yàlla kon eh, xadis bi jóge ci abu hurayra ak abi saïd al xudri xadis bi eh, loolu lay tegtale waaw wax bi jóge ci ibnu umar radiallahu taala anhu mu wax ne tudd yàlla eh, ci suba zikrullah allah ci suba ak ci ngoon moo gën a rëy màgg euh, dóor euh, corante ay jaasi ci yoonu yàlla ak joxe alal ngiru tawe ci yoonu yàlla tudd yàlla ko gën a foor léegi wax bii nuñ koy def te ibnu omar nag kenn du ne du saxaaba radiallahu taala anhu waaw ak xadis bi jóge ci abu hurayra radiallahu taala anhu mu ne yàlla am na ay malaaka yoo xam ne dañuy wër euh, ci yoon yi di xool ñi nga xam ne di ñuy tudd yàlla ahlu zikr mbooloo yi nga xam ne dañuy tudd yàlla suñ leen fekkee fa iza wajadu xawman yazkuruna allah suñu fekkee mbooloo nit ñoo xam ne ñu ngay tudd yàlla kon aw nit ñuy tudd yàlla la wax kon mbooloo lañ mu daje di tudd yàlla euh, foofa dañuy wootante ñu ne kaay leen euh, su ko defee nag ñu muur leen ak seen laafiya euh, jëme leen asamaan ñu teqalikoo ñu yéeg ñoom malaaka yooye ñu yéeg maanaam mbooloo ma suñu teqalikoo suñu tuddee yàlla ba teqalikoo ñu yéeg su ko defee ñoom suñu yéegee ci asamaan euh, seen borom da leen di laaj na leen euh, fan ngeen nekkoon fan ngeen jóge ñu ne ko ñun daal dañoo ñëw jóge ci ay say jaam yoo xam ne euh, ñu nga la doon sàbbaal doon la màggal doon la sant su ko defee suñ borom ne ndax ñooña Euh, gis nañ ma euh, malaaka yi ne leen euh, déedéet mu ne suñ boroom ne leen naka la ñuy mel su fekkoon ne gis nañ ma man yàlla malaaka yi ne leen su fekkoon ne gis nañ la day ca da seen seen jëf ja ñuy jëf dana gën a tar nañ koy jëfee màggal gañ lay màggal dana gën a rëy waaye sàbbaal gañ lay sàbbaal dana gën a bari foofu suñ borom laaj leen lan lañuy laaj malaaka yi ne ñoom de lañuy laaj mooy aljana dañoo bëgg dugg aljana suñ borom laaj leen ndax ñoom gis nañu aljana ñu ne ko déedéet gisuñu ko de mu ne suñ borom ne leen naka la ñuy mel suñ doon ñoo gis aljana malaaka yi ne ko suñ ko gisoon day danañ gën a tar ca lañu doon def maanaam ca la jaamu yàlla gañ doon jaamu ak ñaan gañ doon ñaan àjjana euh, te dañ ko gën a xemmeem itam suñ borom ne leen waaw ci lan la ñuy muslu mu ne ko dañuy muslu safara suñ borom ne leen waaw suñu gis ndax gis nañu safara ñu ne ko déedéet mu ne naka la ñuy mel suñ gisoon safara su euh, malaaka yi ne ko suñ gisoon safara danañ gën a mën a muslu danañ gën a tar ak muslu suñ borom ne leen euh, suñ ko gisoon day danañ gën a ma daw danañ gën a moytu danañ gën a ragal euh, euh, suñ borom ne leen malaaka yi nag dem leen nga seedeel leen ne leen man de jéggal naa leen man yàlla jéggal naa leen euh, benn malaaka ci malaaka yi ne am na ku nekkoon ca ñoom diw ma nga woon ca seen biir toog waaye bokkul woon ca lañ doon def loolu lu muy tekki diw a nga woon ci seen biir waaye bokkul woon ca lañ doon def lu tax parce que diw moom daa ñëw rek toog ñoom ñuy tudd yàlla moom toog na le di seetaan bokku ca yàlla suñ borom ne leen ñooñu ñuy nit ñi nga xam ne ku toog seen toogaale du texee di seen toogaale du texee di maanaam ku toog ak ñoom sax doo texee di kon lii lu mu doon dul mbooloo mu daje di tudd yàlla parce que ka ci seen biir te tuddul yàlla gis nga ko yàlla boolewu ko ca euh, lii xadis la boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abu hurayra radiallahu taala anhu euh, xadis bi nag ñu jëlee ci ibnu abi shayba jëlee ko ci ahmad mu ñëw ci muslim ñëw ci tirmisi yi ñëw ci nisaa yi mu jëlee ci muawiya mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génnoon fekk saxaaba yi ñu nga daje woon ci benn géew euh, mu ne lu leen toog loo fii ñu ne ko dañoo toog di tudd yàlla di ko sant ci lim ñu baaxee ci ay xéewal ci xéewale ñu lislaam gindi ñu ci lislaam Euh, mu ne leen loolu rekk moo leen tax toog ngir yàlla ñu ne ko waaw mu ne euh, maa ngi leen di giñal ne Jibril dikkal na ma wax ma ne ma euh, yàlla def na ay yëpp maanaam malaaka yi ñu ngi leen di sigaroo may ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di tiitaroo kon kii bi ndaje bii ñu daje woon ñoom ndaje bii ñu baje woon ba Euh, yonti bi fekk leen fa laaj leen lii ndax lii du ay saxaaba ñoo ko doon def kon kon lii itam xadis bi itam euh, mat naa bàyyi xel euh, xadis bi jóge ci Ahmad jóge ci Abu Yaala Ibnu Xibaan Bayhaqi jële ko ci Abi Saïd al Xudri mu ne yonti bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom tabaraka wa taala day wax bis penc ne dana xam ñooñ mbooloo ya ñooñ mbooloo ba ne tay ñan ñooy boroom ñan ñooy ñooñ teraanga su ko defee ñu laaj ko ne ko ñan ñooy ahlul karam ñan ñooy ñooñ teraanga yow yow yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa mu ni mooy ahlu majalisu zikr mooy ña nga xam ne dañ daan daje ci géew yi tudd yàlla ya majalisu zikr ci géew yi tudd yàlla ya ña fa daan daje ñooña ñooy ahlul karam bis penc euh, sallallahu alayhi wa kon lii itam beneen tegtal la ci ne mbooloo yi daje di tudd yàlla am na fuñ ko teg xadis bi jóge ci euh, ahmad jële ñu jële ko ci anas ibnu malik mu ci wax ne abdullah ibnu rawaxa abdullah ibnu rawaxa nag euh, keroog xeexu mutata moo fa desoon moom ak jaafar ibnu euh, abi talib ak ak abd ak zeyd ibnu xaarisa ñoo desoon keroog ca xare ba Euh, Abdullah ibn Rawaha mii dafa daan def ku mu taseel ci saxaaba yi woola ngir ngeen daje tudd yàlla euh, bis nag mu def ko benn waay waaja mer dem wax ko yonent bi ne euh, xanaa gisoo ibnu Rawaha yarqab an foofu nag yonent bi ne ko ibnu Rawaha day yal na ko yàlla yërëm dafa bëgg Euh, jotaay yi nga xam ne moom la euh, malaaka yi di tiitaroo suñ ko gisee dañ fay sigare wu dem muur leen suñ paree dem wax ko suñu borom suñu borom jéggal ñooña lii la ab ibnu rawaaxa bëgg moo tax ku mu gis ci saxaaba yi dalay woo pour ngeen toog tudd yàlla euh, xadis bi itam ibnu abi shayba moo ko génnee jële ko ci abi hurayra muy wax ne waa asamaan dañuy gis néeg yi ñuy tuddee yàlla di leer comme ni nga xam ne noonu la biddiw yi di leere ci suuf noonu la nii eh, néeg yi ñuy tuddee yàlla di leere ci kaw waa asamaan kon bii itam eh, beneen la buy tekki loolu jóge ci xadis bi jóge ci ahmad eh, ñu jële ko ci ibnu umar muy wax ne wax naa yow yonent yàlla bi maanaam yonent bi dafa laajoon Euh, maanaam euh, tono bi nga xam ne moo moo nekk ci majaalisu zikr mu ne ko lan mooy tonoy majaalisu zikr euh, mu ne ko tono yi nga xam ne moom lañ jëlee ci majaalisu zikr mooy aljanna mboolo yi daje di tudd yàlla seen pay du lenn dul aljanna lii ibnu omar moo ko jëlee ci maanaam ahmed moo ko jëlee ci ibnu omar xadis bi xadisu imam ahmed la ñu jóge ko ci ibnu umar radiyallahu taala anhu kon ghanimatu majalisu zikr aljanna rek la du leneen hadith bi jóge ci ahmad euh at ak euh ñu jële ko ci hanas ibnu malik euh mune yonent bi salallahu alayhi wasallam waxna ne so len rombe riyadul janna muy jardin yi aljana yi na ngeen fa sàmm ñu ne ko lan mooy jardin aljana yi mooy xalaqu zikr mooy géew yi tudd yàlla ya géew yi tudd yàlla géew nag suñ ko waxee mooy mbooloo mu dajale fub géew loolu yaakaar naa ne géew moom su xasee am du kenn ku nekk yaa di wax waaye mbooloo maay wax géew moom suñ ko xasee wax euh, ku mbooloo la mu daje di def nangam moo tax ñu koy wax géew kon foofoot yaakaar naa ne xadis bi ku fa xool da nga xam ne euh, loolu kenn mënul ne du sunna su bi sallallahu alayhi wa sallam Eh, waaw lii itam ñu ngi ko jëlee ci ibnu abi shayba eh, ñu jële ko ci muaz ibnu jabal mu wax ne ma toog ci ma toog di tudd yàlla ci suba ba jant ba fenk mu ma gënal eh, ma gàddu ma ma war ca kaw fas ya di xeex ci yoonu yàlla mu ne ba jant di fenk maanaam mu xëy euh, war fasam di xeex ci yoonu yàlla ba jant fenk mu toog di tudd yàlla ba jant fenk moo ko gënal comme ni nga xamee ni que mu gont di tudd yàlla ba jant soo moo ko gënal itam mu war aw fas di xare ba jant so kon loolu itam benn la ci waa xadis bi itam nga xam ne mu ngi jóge ci jaabir ibnu abdallah mu wax ne yonent bi génn na ci ñun bis Eh, daldi ne yéen ñi yéen nit ñi yàlla de am na ay saraaya ci malaaka yi yoo xam ne dañuy eh, wàcc taxaw ci majaalisu zikri yi maanaam mbooloo yi daje di tudd yàlla mu ne eh, na ngeen sàkku na sàmm ci jardin wu àjjana yi ñu ne ko fan la mooy jardin wu àjjana yi mu ne majaalisu zikr muy place yu ñu daje di tudd yàlla mbooloo yi daje di tudd yàlla mu ne su na xëy na fa xëy te ngeen gontu ci tudd yàlla ngeen di tudd yàlla euh, te ngeen di ko fàttali seen bopp euh, képp koo xam ne euh, bëgg na yàlla wàcce ko fa moom palaasam na xool fan la teg suñu borom tabaaraka wa taala ku bëgg yàlla teg la fenn na nga xool fan nga teg suñu borom ndax yàlla dafay wàcce jaam. fa nga xam ne euh, fa la jaam bi wàcce boppam maanaam su dee da ngay tudd yàlla di dajaloo ca mbooloo yi tudd yàlla yàlla teg la fu kawe su fekkee ne doo tudd yàlla doo bokk ca mbooloo yi tudd yàlla yàlla teg la fu suufee rek kon euh, ku nekk fa nga teg sa bopp rek fa la yàlla di teg euh, xadis bi ñu jëlee ci Barraz jëlee ko ci Anas jëlee ci yonent bi sallallahu wa sallam mu ne yonent bi sa yàlla suñ boroom tabaraka wa am na ay eh, malaaka yoo xam ne dañuy wër di sàkku di wër géew yi tudd yàlla yi suñu egsee si géew yooyu dañ leen di muur eh, waaye dañuy yable eh, ca asamaan rabbul izza ñu ngay wax ak moom naan ko yàlla day suñu boroom dikk nañ ci ay jaam ci sa jaam yi yoo xam ne ñu nga lay màggal ñu ngay jàng sa téere bi ñu ngay julli ci sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nga lay laaj euh, seen mbirum àlaxira di la laaj seen mbirum àdduna su ko defee borom bi tabaraka wa taala di wax naan muur na leen sama yërmande euh, ñooñu day see ñooy jo toogaale ya nga xam ne ku toog ak ñoom doo texee di ñooy toogaale ya nga xam ne ku toog ak ñoom doo texee di donc ñoom fa ñu nekk ku fa dugg sax dootoo texee yi euh, ki nga xam ne li nga xam ne soo ci nekkee ku toog ak yow sax dootoo texee di même su bokkul ak yow li muy def ndax lii tere ko Euh, lu jaadu la euh, xadis bi Bayhaqi yi moo ko indi euh, Abdullahi ibnu Maghfal wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mbooloo aw nit maa xaw xawmin ijtamaaw mbooloo du ñu daje di tudd yàlla lu dul ne aji woote dana leen woo ca asamaan ne jóg leen jéggal nañ leen jóg leen jéggal nañ leen weccoo nañ seen jëf yu ñaaw yax jëf yu rafet euh, mbooloo duñu daj du ñu daje euh, ci place ba teqalikoo tuddul ñu yàlla lu dul ne yàlla dana def seen ndaje mañ daje woon mu di rëccu bis penc kon mbooloo mu daje di tudd yàlla suñ borom dana yabal euh, aji woote ca asamaan mu ne jóg leen jéggal naa leen waaye itam mbooloo mu daje di tudd ñu yàlla ndaje mañu daje bis buñ teqalikoo Euh, dispenc ak réccu rek la moom loola di doon kon lii itam euh, wax la boo xam ne euh, mat naa bàyyi xel xadis bi joge ci abaraan yi ñu jëlee ko ci amr ibnu absa mu ni dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne an yamin arrahman wa kilta yadayhi yaminun rijalun yaminun rijalun bi anbiya wala shuhada Euh, am na ñoo xam ne fa ñuy toog sa suñu borom tabaraka wa taala euh, niñ ko mën a wax ca ndeyjooru suñu borom la ñuy toog te suñu borom nag euh, amul ndeyjoor ak càmmoñ loolu la bëgg a wax mu ni ay góor lañ ñoo xam ne du ñu ay yonent du ñuy shuhada waaye seen leer ga dana muur seen kanam ya maanaam seen leer ga ci seen kanam ya kuy xool danga koy seen yonent yi dañ leen di ñee suhadaa yi dañ leen di ñee ci jotaay ba ñu toog yàlla jegale leen boppam ñu ne leen eh, ñu ne ko yow yonent yàlla bi ñii ñooy ñan mu ne ñoom ñooy mbooloo ya nga xam ne eh, hum jimaaun min nawaziil xabail ay mbooloo lañu yoo xam ne ci ay xeet lañ bokkoon yu wuute waaye dañ daan daje dañ daan daje ala zikrillahi dañ daan daje di tudd yàlla eh, ñuy Euh, ñuy génne ay kàddu ñuy wax ay kàddu euh, yu teey comme ni nga xam ne noonu la ñuy tànne ñuy tànn kàddu yu teey comme ni nga xam ne noonu la ñuy tànne tàndarma euh, ni ñuy segge tàndarma ju teey di ko génne di ko lekk kàddu tàndarma ni muy génne tàndarma ju teey di ko lekk noonu la ñu doon def maanaam ñoom nañ doon daje di tudd yàlla kàddu yu teey yañ doon daje maanaam suñuy def salaatu ala nabi yi Eh, zikrullahi ya ay kaddu yu tey lañ ko doon boole di ko def mu ne mbooloo yooyu eh, di daje di tudd yàlla di def loolu eh, bis penc dañuy jege suñu borom jegeen boo xam ne yonent yeeg shuhada yi ñëpp leen di ñee oh, ñooñu mooy ñi nga xam ne dañ daan daje ci majalisu zikri di tudd yàlla mbooloo yi daan daje di tudd yàlla te bokk ci ay xeet yu wuute nag ñooñu ñana ñu ngi leen di jaajëf xadis bi yi génne ko jële ñu jële ko ci abi darda Euh, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla euh, dana dekkal aw nit bis penc seen kanam yaa nga leer leer a ngi ci seen kanam ya euh, mel ne ka lu lu su ko defee ñooña nit ñëpp dañ leen di ñee te ñooñu kat du ñuy yonent du ñuy suhada benn arab ne ko yow yonent yàlla bi melal leen ndax nu xam leen mu ne ko ñooñu ñooy almutahabuuna fillah mooy ñu bëggante woon fa yàlla bokkoon ci ay xeet yu wuute ci bokk ay réew yu wuute waaye doon dajaloo ci tudd yàlla doon eh, tuddan fàttalente suñ borom tabaraka wa taala ñooñe ñooy eh, ñi nga xam ne malaaka yi dañuy dekk bis penc waaye ñëpp leen di ñee kon eh, bii itam kon majalisu zikr moo tax muy wax mbooloo yu daje di tudd yàlla moo xadis bii ñu jëlee ci ibnu abi shayba ñu jële ko ci abadata ibnu saamit euh, mu wax ne ma nekk ci aw nit ñoo xam ne dañuy tudd yàlla euh, suñu jullee min xiina yasulun euh, suñu jullee suba ba jant bi fenk moo ma gënal moo ma gënal ba may war ay fas di xeex ci yoonu yàlla ba jant bi di fenk ma nekk ci aw nit ñoo xam ne dañuy tudd yàlla euh, dañuy dañuy dañuy tudd yàlla waxtu woon julee tàkkusaan ba jant bi so moo ma gënal ma war ci ay fas di xeex ci yoonu yàlla bajant bi di so euh, xadis bi niñ koy def mu ne ma nekk ci mbooloo moo xam ne dañuy julli suba di tudd yàlla ba jant bi fenk moo ma gënal ma war ay fas di xeex ba ci yoonu yàlla ba jant bi fenk di jihaad ba jant bi fenk waaye nekk ci mbooloo ñu julli tàkkusaan di tudd yàlla ba jant bi sox mu ma gënal ma war a waru fas di xeex ci yoonu yàlla ba bi sox xadis bi itam euh, yaakaar naa ne euh, majaalisu zikr moo ko tax di wax xadis euh, bi itam nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci Abu Daawud ak Nasaa yi mu jëlee ko ci Jaabir jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci bisu àjjuma ci waxtu woowu nga xam ne mi ngi ci bisu àjjuma te lépp luñ ci ñaan yàlla ku ci ñaan yàlla suñ boroom nangu ko te ñu ne yonent bi ne nañ ko xeeñtu ci waxtu yu mujjee ca bisub àjjuma kon xadis bi itam euh, loolu euh, kon ngoonuk àjjuma googu Eh, lii ay tegtal la ci kon xadis bi itam yii itam ñett yii yëpp ñu ngi wax ci ngoonu ajjuma tudd yàlla ak ñaan yàlla ci ngoonu ajjuma eh, kon xadis yi itam ci loolu lay wax kon eh, yaakaar naa ne lu bëree bëri li ñuy def amul dara loo xam ne mëneesu koo làyyi ci ay ahadis yu leer ci ay alxuraan yu wir beneen xadis a ngi ñëw boo xam ne mi ngi wax ci xadis bi ñu jëlee ci ibnu xibaan jële ko ci abi saïd al xudri yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni aw nit danañu tudd yàlla ci àdduna ci ay laltaay yu ñu tàllal yàlla di leen ci dugal ci daraja yi gën a kawe ca daraja yi gën a kawe kon mbalaan ya ñuy lal di tudd yàlla ci àdduna ca la leen di yàlla di yëkkatee bis penc yóbbu leen ca daraja yi gën a kawe kon ña dajee lali mbalaan di tudd yàlla ca àdduna yàlla yëkkati ci seen mbir bis penc yéegal leen ca daraja yi gën a kawe xadis bi ibnu xibaan indi na ko ñu jële ko ci abi saïd al xudri kon euh, yii yaakaar naa ne euh, ay xadis la yoo xam ni euh, gis nañ ko waaye nag ñu tëje ci aaya alquran suñu boroom tabaraka wa nag wax kan moo gën a mën a tooñ kan moo gën a mën a tooñ ki nga xam ne dafay tere jàkka yàlla yi ñu fay tudd turu yàlla bi suñu borom tabaraka wa taala kii wax naan bu kenn tudd turu yàlla wi ci jàkka yi suñu borom yi muy wax di dox pour fexe ba loola du am muy wax di dox ba fexe ña daje ca jàkka yi di tudd yàlla loola du am أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم gis nga ñiy def lii toroxtaaneel àdduna ak toroxtaaneel àllaaxira mu ngi leen di xaar mbugalum àllaaxira mi ngi leen di xaar ñi nga xam ne dañuy fexe ba nit ñi tudd yàlla daje ci jàkkay yàlla yi di tudd turu suñ borom yi euh, loola du am fexe koo yàq fexe dox pour mu yàqu di wax pour mu yàqu nañ xam ne suñ borom a ngi leen di xaar ak toroxtaaneel àdduna ak mbugalum àllaaxira mbugal mu mag nag kon li yaakaar naa dara jaru ko wàcc nañ fi ñaar fukki xadiis yoo xam ne lépp ci dajaloo tudd yàlla lay wax ak tudd yàlla ci boppam moo xam bésu àjjuma moo xam dajaloo moo xam lali malaan moo xam ay ay alxuraan yu wax ci tudd yàlla di ko digal ay mbooloo ñu di ko def yàlla digal ci yonent bi sallallahu alayhi ci kon nañu ak bañante ci loo xam ne du dëgg bum nu yóbbu ci dajeg sànjab yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa euh, dara jarul yenn yi yenn mbooloo mu daje di jaamu yàlla doomu aadama yi yàlla daf leen bind pour ñu jaamu ko doomu aadama yi yàlla da leen bind pour ñu jaamu ko doomu aadama yi yàlla da leen fi indi pour ñuy tudd yàlla tudd yàlla gi mooy dalal seeni xel mooy dundal seeni ruux ku leen ko tere ci loo leen jëmee ku la tere naafila tere la zikrullah tere la dajaloo tudd yàlla soo dajaloo looy def looy def jëw looy def xaste looy def wax lu bon dooy def wax lu dul dëgg lan ngay def tudd yàlla mbooloo mu daje ba teqalikoo tu tudd ñu yàlla la ñu daje pertement la ci àdduna pertement la ci àllaaxira kon euh, bu ñu farfarloo yóbbu ci yenn yi bu ñu farfarloo yóbbu ci yenn yi ku wax ne lii du sunna indil ñu lan mooy sunna kon képp ku ne lii du sunna la nga nekk moo dul sunna ku ne lii waxuma la sunna mais lii day farata parce que ndigalal yàlla la ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle la na ngeen seetlu ne li muy wax yépp ay impératif moo fa nekk uzkurullaha tudd leen yàlla la yàlla di wax na ngeen ko sabbaal digle la de day digle aay ci wax xadis yépp day soññee jëme ci loolu kon la fa nekk du sax sunna kese mais farata la ci jullit bu nekk ngay tudd yàlla farata la ci jullit bu nekk ngay dem ci majalisu zikr farata la ci jullit bu nekk ngeen di dajaloo di tudd yàlla suba ak ngoon loolukat lu gën jihaat xam nga ne moo gën lépp lépp lu gën jihaat lu ko gën mënatul am tudd yàlla dara mun koo am kon nañ bàyyi farfarloo yi te dellu ci yàlla te bàyyi caaxaan caaxaan baaxul am na loo xam ne dara jaru ko ci àdduna ñu ngi jégglu ñëpp euh, ci guddal bi ak euh, wàcce yu bari yi euh, di balu jégglu boroom xam-xam yi lu ci leer suñu borom la lu ci lëndëm suñu gàtt àlloo suñu ñàkk fasaaxa la di ziyaara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande ci chaîne bi nag. bësal fini ni ñu sabone. s'abonner après kolos bini. cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat fii nii si commentaire li nak do ci fay dara te dina tax video buñ dugalati di ci jot jangin